di ñaanal Umar Sall yal na yàlla defal ko jàmm yal na yàlla génne ko fu mu nekk jàngat bu ndaw bu ma siy def rek mooy que tey jii euh, tijaan yi lan moo tax ñu porter plainte Ousmane kii kay nu ñu koy waxatee Umar Sall c'est juste parce que dafa wax ne fa bokkul ci diine maanaam dajaloo bi tijaan yi di dajaloo saa buñ jullee ba pare. dajaloo bu ñuy dajaloo di yuuxu naan allah allah allah Omar Sall dafa wax ni loolu noonu bokkul si diine. bi Omar Sall waxee lool ba pare ñu dem def seen ay gëstu xool téere na yëpp gis ne loolu amu fa dem xool alxuraan ba sonn gis ne kat amul fenn fu ñu yàlla diglee gannaaw julli ñu dajaloo di yuuxu au lieu ñu nangu dëgg bi leen Omar Sall wax mais rëy dañu rëy goo xamante ne nanguñ dëgg bi ñu ne nag ñu gàcce gi pour ñu saafara ko nañ ko dem porter plainte jaay ko doole. léegi nak taxaw sel bi moy Sénégal dafa am affaire bu fi am moy que bo boo ci tarixa bo bokkee ci këru diine am nga droit saga yalla am nga droit wax lula neex am nga droit def lula neex te daara dula ci fekk. Sénégal bo bokkee ci tarixa n'importe quel tarixa nak am nga droit wax lula neex ci diine ci te dara dula euh, ci fekk tay ji collectif des Tidjane bi nga xamante ñom ñoo porter plainte Oumar Sall ñom seen bëgg bi ñuy wax ci yonent bi bu dee dëgg la. bu dee li ñuy wax ne dañoo bëgg yàlla bëgg diine islam bu dee loolu dëgg la ci ñoom bi fi mustafaa si toogee daaw rek organiser gàmmu woo ci jullit ñi ba jullit ñi wuyu si ko mu taxaw directement première partie gàmmu bi lu mu njëkk a def dafa saaga yonent yàlla Souleymane saaga yonent yàlla Daouda ci gàmmu bi direct ñëpp di dégg. collectif Tidiane lan moo tax porté woo leen plainte Moustapha Sy jour boobu parce que Moustapha Sy Tidiane la parce que Moustapha maktum moy bayam, parce que Mustafasi, sing seigne Babacar si moy mamam parce que Moustapha si surtout alhadji malik la ci tarixa tidiane la bokku dafa am mbolo dafa am ginnaw motax do len ko porter plainte domam bi mu jur ci gagnom capitaine taxaw na fi xol Moustapha si ba mu nekk ne ko papa yow bula yalla nare fay ma xeex ak mom maktar sar video bobu deg nga ko Mamatar gay Jamra video bobu deg ngeen ko collectif Tidiane deg ngeen wax yoy capitaine si wax porté woo leen ko plainte benn yoon pour lan parce que dafa am doole Moustapha Sy mooy baayam moo tax lu ko neex mu wax ko ci diine bi Baye Ousseynou génn na fii ne dafay poñe yàlla teg nañ fi vidéo bi sànq ne dafay damm yàlla wax wax yàlla wax yoo xamante ne ni rus nañ ci sax jaaraat ngeen koy dégg di gis vidéo boobu noonu porté woo leen ko plainte ab taalibe murit génn na taxaw ne suñ Tuubaa moo bind yàlla ngeen dégg ko nii ci seen nopp gis ko nii kooku yéen a dund ak moom ba léegi nii Sénégal yéen a ngi koy gis yéen a ngi yeewoondoor ak moom di ko gis nii te ba léegi nii porté wala ko plainte dara jotu ko mi ngi ci jàmm ak salaam. beneen murit génn na fi teg alxuraan dëgg ci ay tànkam ne man fi ma sëñ Tuubaa làkk kenn mënu faa yegg maa ngi nii sama tànk laa jël teg ko ci alxuraan dara duma si fekk kooku anamu. ay jullit ngeen de yéen a ngi nekk moom biir senegal porté wala ko plainte benn yoon. kon senegal réew la moo xamante ne kumba am ndey moo fa am ak amul ndey léegi nag yaakaar ni porte ko plainte ko kaso loolu mooy freiné daawo bi wala ku yakarni ni Omar Sall kaso moy tax bu fay nopi da fay bayyi di leral duggu yalla ji yaangi nax sa bop Omar Sall li ngeen def ni da ngeen ko gëna mëna may temps pour mu gëna a ak jaamu yalla julit bi lepp lu ko dal yiw la Omar Sall bu kaso bi iznillah walu da fa a gën a problème bi moy fim nek ni yeen yeen problème bi ngeen am moy deug bi nek di leer manam deug bi ñew ne fang ñëpp di si teg seen bët ñëpp di gis ne alxuraan ak sunna mooy dëgg tarixa yi ay caaxaan la ay yoonu cheytaan la yoo xamante ni ku ci topp wàccoo safara dong la lay jëme amul benn direction bu la tarixa di yóbbu dul safara parce que njub ci topp yonent bi la nekk njub nekkut feneen Omar Sall bu ngeen ibbi woon xolam ba xam lum leen yéene non doo leen ko porter plainte Omar Sall dafa ñëw fekk leen ngeen di def lu wuuteeg lu yonent bi daan def mm-hmm. mu ne leen lii kat yonent bi musu ko def yonent bi daaw ko def parce que daleen leen yéene njub moom Omar Sall moo tax mu wax loolu parce que doomu julit bi yow doomu aadama bi doo wuteeg yonent bi mukk ba pare di ci am récompense yàlla jamais de la vie yàlla yonent bi la yónni kon yow façon bi ngay jaamoo yàlla yonent bi nga ko war a royee beneen jaamu yàlla boo jël di ko jaamoo yàlla te royee woo ko yonent bi zéro la perte temps la Omar Sall xam ngeen lan la leen di bañal ngeen egsi ba yowmal qiyaam gis ne ndekete cheikh tidiane lum len leen lo won yépp ay illusion la won ay fiction la won dara du won ci deug ngeen commencé nak di reccu ngeen commencé nak di reccu du yuuxu omar sall li la len di bagnal motax mu kat ah yene a ngi jamo yàlla façon bo xamanteni ni dafa wutek nuko yonenti bi dan defé bu la omar sall waxé lolou yow julit lan mo la war bu dee bëgg nga dëgg bu dee bëgg nga njub demal nga vérifier lu Omar Sall wax nga weddi ko ci xam nga dajj ko ci xam mais bul dem di ko porter plainte loolu amul sens parce que ay jullit bu ñu réeroowee alxuraan moo leen war a atte ay jullit bu ñu sun na yonent bi moo leen war a atte ay jullit ñu réeroo ba pare di dem ci ay loi laïque mu leen di atte loolu Sénégal kese la am ay jullit yoo xam ne nee ay julit la ñu am wuute ci diine ba pare dem ci ay luwaa yu yéeféer ay loi yu satanique pour loi yooyu noonu atte leen kon loolu dafay firndee li ma leen yàgg wax ni Sénégal diine amu fa tarixa moo fa am ay tarixa yu fa maam yu sos bàyyi ko fa tey jii mu féewale ñu ñun jullit ñu mu diviser ñu. booloo bu ñu waroon booloo tey jii nekk benn tarixa yi yàq na ko mais incha allah Oumar Sall li ngeen def nii da ngeen ko gën a dooleel sunna mi ngi gën a leer Sénégal nit ñi dinañ gën a yeew dinañ gën a topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tarixa yi dafay jeex bi iznillah parce que ay caaxaar la. te ñëpp ñi nga xam ne tarixa yi ay caaxaan la dafa yomb trop yàlla sàkk la nga nekk ci àdduna di def lo neex dem topp keneen ku wute ki yàlla yónni ba noppi di ci yaakaar fayug yàlla yowmal qiyaam non loolu ay naxaate la yeewu leen ngeen topp alxuraan ak sunna te xam ne loolu mooy dëgg Omar Sall incha allah dina génn daawo bi dina continuer dëggu yàlla ji dina gën a leer seen caaxaan yi dina nax saay muy tey di ëllëg bi isnillah